jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafet rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a bu baax a baax te xam ne seen mbégte leeg mooy suñu yitte ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñooy kilifay diine yi di nuyu kilifay aada yi di nuyu sëriñu daara yi ak ñi nga xamante ni ñooy aar daara waaye di ndokkeel bu baax a baax waa bitim réew si jàpp gi nga xamante ni jàpp nañ ko si liggéey bi ak cofeel gi nga xamante ni am nañ ko si liggéey bi jërë ngeen jëf di fàttali gouvernement bi rek seen jafe-jafe ya nga xamante ni amee nañ ko si mbiru kayit ak xeetinu nekkin wu ñoŋ na leen si jàppale bu baax a baax waaye son bu yaa ngi fàttaliku baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi waaye ñii nga xamante ni ñu ngi si marché luuma yi ñoom it tàllal nañu loxo CCB di fàttali gouvernement bi mu taxawu leen marché luuma yi kat ñooña fa nekk foofa lañ mën a suturloo foofa lañ mën a jëlee luñ jox seenu njaboot kon président Macky Sall nga gestu ñii nga xamante ni ñu ngi si marché luuma yi soxna bu nag émission bu mag bi di seen xalaat ni leen ko waxee woon léegi lépp lu xew dañuy jox askan wi kàddu laaj leen lii xew lan moo si seen xalaat ndax xam ngeen ni CCB moom du leen kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne nga ci ba tax ñuy ànd ak yéen tey ji ñi ngi waxtaan jëf ji nga xamante ni capitaine Dièye jëf na ko muy si dossier Ousmane Sonko bi taxawaay bi mu ci amee kenn ku nekk ni mu ko gisee moo tax ñu jox askan wi kàddu ñu wax ko ndax ñi nga xamante ni ñi ngi bàyyi xel réew mi ñëpp dañuy bàyyi xel GCB su boobaa dinañ xam askan wi ban taxawaay lañu amee si mbirum capitaine Dieye mais laataa loola son yi bu dinañ ànd ak Baye Cheikh Fall mi nga xamante ni moo ñu gunge si liggéey bi wax nañ leen ko waxati leen ko ay numéro téléphone am ngi noon yi lii nga xamante ni mooy asma asma Baye Cheikh Fall si diir bu gàtt mu tàggale la ak moom waaye lii nga xamante ni it mooy eh, jabet jabet sonal na kilifa yi trop son yi bu si diir bu gàtt lay tàggale ak jabet moom Baye Cheikh Fall waaye émérite noonu la si jàmbaare lool dana tàggaleeg moom bu dutoo ko am ndax xam nga ni Amérique moom sonal na nit ñi lool lool lool waaye lii nga xamante ni mooy pays it te xam ne pays bu njëkk yàgg na fi torop fi lañ ko fekk waaye Baye Cheikh faal yàlla dimbali na ko ba day faj pays ci diir bu gàtt moom pays moom nga xam ne ñëwoon na fi son yi bu biñ ñëwee gouvernement bi dañ ko proposé naan am na jàngoro bees bu fi ñëw si lañ leen wax ni leen képp ku ko am na ko indi ñu yóbbu ko si Baye Cheikh Fall mu faj ko tu leen laaj dërëm moo tax dellut nañ si ginnaaw pays moom amu fi promotion di ñaan feebar bi mu daal di fiy jógee son bu di taxaw nag di foofu di la wax nga jox ma gars yi ñu waxtaan ak ñoom si mbir mi nga xamante ni xew na soxna bu Diop ñu ngi xaarandi gars yi kon ñu ànd ak ñun 128 33 29. lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko ànd ak ñun it numéro boobu affiché rawatina yéen ñi ànd ak ñun si liggéey bi wala ngeen yor lu ngeen di jaay bëgg mu siiw. numéro boobu yi bu ngeen si wootee dana siiw incha allahu rabbi si émission bu mag bii ni nay leer nay leer yow mi am loo xamante ni bëgg nga ko wane wooteel si numéro yi téléphone yooyu sooy bu bu ko defee nga làmbal ma gars yi Baye Cheikh Fall moo leen di gunge si émission bu mag bii nga xamante ni mooy seen xalaat day firi gént waaye it yàlla may na ko lool si listixaar moom Baye Cheikh Fall. bu ko defee nag capitaine Dieye mi ngi war a waxtaanee jëf ji nga xamante ni jëf na ko ah man na gis-gis bi ma si amee rek mooy comme bis ñëpp amee yaakaar naa ni mooy bi ay waajuram amee mooy bi si soxna bu jóg amee démb noonu mu ko waxee gis-gis boobu laa ci am. ndax bu fekkee ni da ngaa am fooy liggéey waxuntuma la sax lu toll ni am réew ak ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ak lu mënoon xew waroon naa mën a téye secret ya fa am yëpp ndax yaakaar naa ne am na ay dossiers yu fi am am na sax ñuñ wax ñi dañu fay rey ay nit te ba léegi gis gisoo kenn taxaw ne ki rey nit ki wala kii rey nit ki kon bu fekkee da nga am fooy liggéeyee mu doon loo xamante ni lu rëy la da war a xam tolluwaayu barab ba ngay liggéeyee boo fa jógee nga téye sa gémmiñ bu fekkee da ngay démissionné nga bind joxe toogal ñu tontu la nga daal di say pare nekk ca leneen ndax gis nañ fi ñu ñu raje daq leen te ba léegi déggoo seen kàddu ñu wax dara te am nañ lu ñu wax ndax dañu doon liggéey ci gouvernement bi kenn ku nekk foo nekk di fa liggéey am nga loo wax waaye nag boo fa jógee war naa mën a rafet waaye waroo wër di wax lu ñor ak lu ñorut kon ñoo ñu koy jox kàddoot tey jii buñ ko indilee ay problème duñ ko ca génne kon ñoo ko waroon a woo conseil ko ni ko noppil baal yoon mu def liggéeyam bañ génn ci lii ñu doog a toog waxtaan boo doonee simple waaye ba léegi yaa ngi si eh, fi nga doon liggéeyee kon bul di waxagun waaye ñëpp dañuy njëkkante ay information rek kenn ku nekk di tàllal micro di laaj loolu lu mën a ñàkk la daal sony bu gisee naa gis-gis boobu laa am ci mbirum capitaine Dieye moomu nga xamante ni def na ko li ñu wax it ñii bëri nee nañ dañ koo liggéey liggéey ñii bëri nii dafa àttunu dossier bi ndax xale la ñu bëri nii dafa maam dafa am cofeel ci Ousmane Sonko ñu bëri daan ni li mu def mooy dëgg lu bëri ñi lim def mooy dëgg biñ ko ko dénkee lim si gis rek la wax mais est-ce que foofu la ko war a waxee loolu lépp dinañ si ànd ak gars yi laaj leen loolu lan moo si seen xalaat. mu mel nekk ni gouvernement bi jot na yu mel nii buñ ko dee defati ponkal da ko jox ponkal allo allo allo. bisimilah. waa salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Baye Assane Mesere ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaar. ku baax kooku. waa Serigne Mbaye Sène la fii ci Maroc. ah. sëriñ ni Serigne fii ci Maroc. Serigne. Serigne Mbaye Sène. ah waaw waaw waaw sëñ Mbaye Sène noo def. maa ngi sant maa ngi sant bu baax alhamdulilah. sang bi ñu ngi siyaar de. waaye ñu ngi delloo siyaar bu baax te rafetlu liggéey bi di am mbégte lool ci GCB. jërëjëf sëriñ mbay Sène waaw xam naa nag wax dëgg yàlla amoon nan amoon xalaat ci li nga xam ni mooy débat tey bi moom mooy émission bi waaw mooy capitaine capitaine Touré yi nga xam ni dafa démissionné te sénégalais yi ñii nga xam ni ànd na nag moom ñii ànduñu ak moom ñii di wax waroon naa wax ñii di wax warta wax waaw noo gisee jëf ji waaye waaye man nag la ca la ma ci njëkk a wax daal mooy man damaa am tiitaange ci senegal ndax buñ demee ba nga xamante ne ñoom la ñuy am yaakaar ci ñoom ñoom ñoo ñoom la ñuy am kóolute ci ñoom. Hmm. ñi nga xamante yaakaar ñun xaw ma nan la. dëgg la. ndax ndax moom déglu naa discours am moom nee na dañ koy déglu di ko topp bokk na ci li ko gën a sonal ba nga xam ne looloo tax mu démissionné man léegi damay xalaat damay laajte naan ñun ban Sénégal la ñu nekk. doy na waar. nag ci sama xam-xam bu gàtt damay def analise ndax damay dégg ñii naan dafa feebar ñii naan wérul waaye man damaa jàpp ni. Hmm. discours bu mel noonu ku mel noonu ku ko bind ak wax ji nu mu jubee ak nu mu leere hmm. man defe naa ku wérit du bind la. kon est-ce que xabtaluñ ko. waa déet man nag damaa jàpp dafa am ay menaces yoo xamante ni dafa nekk ci ginnaawam wala ñu ñan ko loo xam ne dem na ba attanutu ko moo tax mu dëgg si man loolu laa jàpp waaye jàpp ma ni. dañ koo xabtal wala dafa feebar dara dara nga xam ne kii dara dara na solo sëñ Mbaye Sène li ñu war a lijjanti nag mooy ana lan moo nekk ci ginnaaw capitaine ture ak lan lan jëflante ak moom ba tax tey mu démissionné bay dem bay jël population bi témoin di leen wax ni feebaruma dara daluma maa ngi nii ci jàmm maa ngi nii dara yëguma benn jàngoro sama yaram kon léegi day dafay wax ne lépp lu dar rek ñoom ñoo ko ko teg am na solo waaye man li may leen di bàyyiloo xel daal ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ yaakaar ba dénk leen sunu réew nanu xam ne bis dina ñëw ñu taxaw ci sunu kanamu ci kanamu sunu borom. Hmm. te dinañ diggante ak ñoom nan nan la ñu nan la waroon a sàmmee. Hmm. ndax loolu ñëpp sunu borom la. na solo sëriñ Mbaye Sène. te lu dul nguuru sunu borom lu dul nguuru sunu borom dafay jeex. ndeysaan. jërëjëf sëriñ Mbaye Sène kontaan nañ bu demee ba nangoo ay liggéey boo xam ne ci la doon dimbale ay njabootam kon moom la muy dund metti na. waaw kay jërëjëf jërëjëf sëñ Mbaye Sène. waaw ah, xam naa ngi jégalu li yëpp lu ma ko hmm. ngi noonu dem Serigne mbay seen di wootee fële sa Maroc ñu ngi ndokkeel waa Maroc gépp di wax ni mu nuyu ñu ñoom Yaxya dara ak ñoom yëkkateeg ñëpp ña fa nekk daal tey jàpp ci liggéeyu CCB jërë ngeen jëf ngeen waa Maroc. di xaarandi gars yi kon ñu ñëw ànd ak ñun ci émission bu am solo bii di seen xalaat. ñu jox askan wi kàddu salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaam waaw si naa seen masale ku baax kooku man la Mouhamed Sylla Mouhamed Sylla noo def baa si jàmm maa sant baax alhamdulilah naka yi tey waaw sant baax waaw tey moom lu waxtaanee nga ne euh, capitaine jëf ji nga xamante ni jëf na ko noo ko gisee waaw wax dëgg yàlla moom man de en cas man daal yàlla dama koy rafetlu. Hmm. ndax xam naa ma ko rafetlu mooy man fekkee da laa sant ab liggéey. Hmm. yow nga koy def na nga ko waree xam nga nit ku ne rek buy liggéey na xool diggante ak yàlla bul xool diggante ak doomu aadama. Hmm. te jubal boo xoolee suñu njiit yi ñu bare bare fi seen liggéey ndéem sax buñ ko liggéeyee sax du yoon sax waaye xool ak diggante ba ki leen ki leen jiite. te duñ xool yàlla. jàpp naa ne nag capitaine Touré nii li mu def nii dafa xool diggante ak yi yàlla ndax enquête bi moom Euh, ñëpp xam na ni moom euh, ñëpp xam nañ ko moom waaw. ndax loolu lépp rek maanaam liggéey bu rafet ak enquête am maanaam ak enquête bu defet ak xool bi nga dem yàlla moo tax bu demee nag ba ba liggéey boobu mu liggéey mu rafet loolu wax dëgg yàlla ay nit di ko di ko si di ko si mm, mm, kii di ko si menace xaw ma di ko di def lu ne ah wax dëgg yàlla moom sa ñaar sa ñaar di bu sonné daa ne ah lépp lu ma dal kon état bi moo ko teg ndax kat nee ne moom ne bind na. nee moom bind na euh, kii ba lu mu tudd si ki jiite euh, commissaire la ko mu daal. na ko ah man kat benn menace. am na solo Mouhamed waaw am na kàddoom yu am solo yooyu fooy wootee. maa ngi wootee Ourossogui. Ourossogui nuyu ñu waa Ourossogui yëpp. jërëjëf jërëjëf Mouhamed Sylla si kàddoom yi am solo yooyu maa ngi wootee fële sa Ourossogui gi ndeysaan mi ngi noonu mu ni Mouhamed Sylla Jomet même numéro boobu ma def foofu pour seen. asalaamaaleykum maaleykum salaam. Baye Sam Misre. ku baax ki. Ahmadou bàmba diwaanu itali diwaanu itali fan si itali maa ngi woote benn dëkk bu ñaan Firenze Santa Maria Novella bokk ci soonu Toscana bi. Eh, loolu rëy na de. moom day xaw a kii waaw naka foofu nu ngeen di dundee si mbirum nu ngeen nu ngeen di nu ngeen koy nu mu tuddatee consommé. waaw ñu ngi nuyu waa CCB info mooy CCB ci ngeen bokk mooy CCB plus. Hmm. ndax buñ ne CCB ci ngeen bokk mu dem ba tey jii nii buñ ne dafa fees ñu sàkkuwaat ñu ibbu info. Hmm. boobu fees ñu ñu ubbiwaat kon plus kon yaakaar naa ku yokkul da ngaa kon mën naa ne foofu bon ña ngi fay wax lu jariñ ña ngi fay sottante xalaat ña ngi fay doxi dëgg nag. Mm-hmm. kon moo waral tey jii benn am ba ñaar am ba ñetti am ñi ngi xaar yeneen ak yeneen nag. yëpp ay mat incha allah. waaw kay kon dañuy rafetlu liggéey bu baax a baax. Ah, sëñ Bamba li ñuy waxtaanee tey mi ngi jëm si capitaine Dieng mi nga xam ne démissionné na ba pare daal maanaam euh, di wër daal di wax li tax ma mu démissionné noo gisee loolu. waaw capitaine Touré euh, ndeysaan maa ngi dégg euh, ay benn vidéo bi ma njëkkee dégg benn vidéo dama tiit hmm. beneen bi ki topp mooy euh, ma ci benn benn journaliste bu ñu naan Ahmed Aydara dañ koy hmm. tudd gis nga les journalistes laay ñenn ñu ku leen moytu wallaahi lañ la dugal ci sëñ bi da nga déplacé tuuti rek baax na waaw baax na waaw Baye San dafa am ñoo xamante ni bi dañoo war a wax mais am na ñoo xam ne waruñoo wax. Baye San nga may ma ma développé tuuti ki nga ki ñu ne ab sangukatam néew la bu waxan rek àdduna tukki. dëgg la kooku warul wax. Mm. ki ñu ne tey jii nii mooy réewle euh, kuy am doom kooku bu waxee rek àdduna tukki. Mm. boo ci dee wax dangay lim da lim bari na bari na bari na bari na bari na kon mooy capitaine Touré mi nga xamante ne bi dafa nekkoon ci benn liggéey. ñu mm. doyloo ko nag jox ko ci ndombal tànk lu wax nañu déglu na ay dossiers yu bëri déglu na leen. kon moom du yoon moment bii nii ak réew mi fi mu toll situation bi fi mu toll moom dafa mel ni ku bëgg yokk ci xar mi karaw man dama ko yërëm ah dama ko yërëm trop billaahi wallaahi. lu tax nga ko yërëm. parce que moment bii wax waru ko parce waaw parce que li tax ma ko yërëm ko mooy euh, ñi ngi jot a dégg ñu ne dafa am dafa démissionné la ñu wax. Mm. comme moom dafa démissionné te dossier bi budul dara. bu dul dara moom wax waru ko parce que dossier bi mi ngi ci loxo yoon ñi ngi enquête moom même bu fekkoon ne dafa bàyyi li mu war a def mooy toog coins jàppañ jàmburam mais dossier boo xam ne mi ngi ci yoon moom dafa mel ne yoon gi mu doon liggéey da koo réer ba pare muy wëlbatiku di def ay vid am na solo sëriñ bu mag bi rëcc na ñu ngi koy ndokkee baax a baax yenn tere yi nag ah. mais yenn télé yi nag ak yenn rajo yi ku leen moytuwul danañ la dugal musiba moom ci wàllu boppam ñii ngi naan ànd naag xelam ndax dafa dañ ko jàpp ci mystique wala dafa am problème mu bopp ma ne am na ci loo xamante ne bii yedd yërëma ko gën na toog xoolaat boppam na toog xaar li nga xamante ne bii moom la dossier bi wax su fekkee day jar delluwaat mu dem delluwaat ci bërëbu liggéeyukaayam mu dem delluwaat su fekkee jaru ko mu toog jàpp ak am na ñooñ dañoo war a wax am na ñooñ waruñu wax mais mais bàyyi son mi may ma tuuti mais ana kaa bi jaata Bruno Diatta wax nañ ne moo toppoon Senghor wax nañ ne moo toppoon Abdou Diouf wax nañ ne moo toppoon Abdoulaye Wade wax nañ ne moo toppoon Macky Sall mais bi mu dee secret la yóbbaale. xëy na xëy na daa am bàmmeelu biir wuñ ko. mais no Baye Assane mais ak luñ ko mën di menace moom wax nañ ne def na li ko war dem na ci bon ay ay njiitam def na déclaration mais na toog na toog ànd ak pat parce que moom wax na ne ragalul kaso ah. wax na ne wiir na plec mais loolu dafa doy mais ngay wërbatiku di wax di telli telli mais moom mais moom dafa mel ni yoon gi mu doon liggéey da ko réer mais di bëggee ñëpp di ziar ñëpp ah di bëggee sony bu di ko wax ne ko ñu ngi koy comet bi moom ah ñu ngi koy rafetlu carrément ñu ngi koy rafetlu à Facebook ñu ngi koy dundoo ñu ngi koy dundaat ci YouTube bi hmm. waaw mi ngi noonu moom ak Sa moom ak Sa Ndiogou Sa Ndiogou leen di bëggee di leen ziar baax a baax mais Sa Ndiogou wax na ne ko nag sa ah. sa Ndiogo gone foofu am na fay gone ginnaaw gone yi mu am Sénégal am na foofu ay gone. ah yii kaay ma xamal la nag man ci njabootu ak Sa Ndiogo gi bokk mbaa xam nga ne maa ko nekkal fii. am na solo kon <laughs> nee na nee na nag na bu leen toj nee na bu leen toj bu leen sàcc. non ñun ab ba bàyyi sa kaay ma xamal la. ñun am nañ lu ñu doy ndax kuy teel a xëy di guddee wàcc yaakaar naa doo ko tal tubaab bi buñ la jàppee ba bàyyi la tëdd rek ngay nelaw nga ngay tal sooy bu jóob laa fi xaar mu ñëw ak saa mais xale bu jigéen boobu lekk toolub jàmbur bi saa njóogu saa ne ko ne ko mi ngi ñuy rey waay xaar ki lekk toolub jàmbur bi <laughs> incha allah na ko mag bi jërëjëf mi ngi noonu di dem kàddu yi am na solo mi ngi wax si émission jomet bi am Walf neuf heures et demi jàpp dix heures numéro téléphone boobu képp koo xam ne am nga lu la jaaxal te nga bëgg sa ku sa dimbali boo si wootee mm, muy jommet incha allahu rabbi dinañ la sa dimbali jàllaleel la la nga bëgg a jàllale mais bu dee it loo xamante ni bëgg nga saafara boo ko jàllalee eh, dana saafara wala bu fekkee loo bëgg partaase ak askan wi incha allah salaamaaleykum dem na mi ngi noonu kon tey jii ñu ngi àndoon ak askan wi jox leen kàddu si capitaine li mu def lan moo si seen xalaat nii rek lay demee ndax it léeg-léeg nga toog di wax ñi lay seetaan ñoo la gën a xam li ñuy wax ñoo la ëpp xam-xam ñoo la gën a def lépp mais yàlla dugalut ñu mën a toog fi nga toog ba leeral li nga bëgg a li ñu bëgg a leeral moo tax nga jox leen kàddu te doog diglu leen moo tax ñu joxe kàddu gi amul ku ñuy wool sunu bopp déedéet dañ naan leen numéro téléphone baa ngi noonu ubbi nañu ko képp ku yàlla dogal nga dugg lépp loo bëgg leeral danañ la bàyyi nga leeral ko si ni mu waree émission bi nag Baye Cheikh Fall moo leen siy gunge euh, altine talaata àllarba alxames ba àjjuma ñu ngi koy gërëm bu baax ay numéro téléphone am a ngi noonu soxi bu jóg am na solo hmm? voilà mel na tey jii dañu xaw a am ay jafe-jafe si technique bi tuuti rek dañuy yëkkati jataay bi sant leen gërëm leen waaye feddali sunu kóllëre ak yéen leen xamal ni lépp yéen la ndax yéenay seetaan yéenay commentaire yéenay partagé waaye yéen yéenay am mbégte waaye yéenay toog di ñaan yokku leen ñaan bu baax a baax a baax ngeen dem ba jàkkaarloog ñun ci tele yi télé GGB tele bu mag ak rajo yu bëree bëree bëree bëri loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax it ki nga xamante ni moo ko jiite bëgg na ko am na bëgg-bëgg bi am na ngëm-ngëm bi tey teg na ci fulla ak fayda te fa mu teg bëtam dégg ngeen mu wax ko muy li fi sunu kilifa gu mag googe nga xamante ni mooy Sidi Lamine Niass def ah, bu ko fi defutit dana def lu ko jege foofu la teg bëtam kon yal na ko yàlla kart kartanal ba mu àgg fa ci barke yonent bi jërë ngeen jëf ba suba incha allah.